na la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 wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi dawi ridwani wa tamkin mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci xew-xew yu mag yi nga xam ne ci la nekk <clears throat> rawatina eh, yoon yi nga xam ni mooy yoonu Gabon wi ñuy xeeñtu jeexi ci sëriñ bi fas yéene jéem a barkeelu rek ca jéegoom yi tedd yooyee ngir sàkku ngërëm ñu ciy ndokkeel ñëpp di ziare ñëpp di jiital ci ndokkeel gi ziar bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo toogee jotaay Cheikhul Khadim di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mooy ko wér ba mu àggalee ay yéeneem ak i naalam ci toolu lislaam bii nga xam ne mooy toolu sëriñ bi te lépp ñu ànd ko moom. ñu fas yéene ñëw rek def benn tënk bu gàtt ci nekku sëriñ Touba radiyallahu taala anhu wa arda ci fii ci réewum Gabon. Euh, ni ngeen ko xamee ku baax ki bi mu jógee senegal ci le 21 septembre 1895 jaar fi mu jaar ba agsi fii ci réewum Gabon tey fii ñu nekk di Libreville fi la njëkk a wàcc bi mu fi wàccee euh, ci débarcadère bi nga xam ne moo jàkkaarloo ak fii njiitum réew mi dëkkee bi mu doxee ay jéego yu yu yu yoo xam ne soriwut ci la daal di julli ñaari rakkaam yooyu nga xam ne fu mu mas jaar te gis ne foofa euh, laab na dana ko fa julli ngir jaamoo ko boroomam mu julli fa ñaari rakkaa bërëb boobee sax ay jamono daan nañ ko wooye malayka ginnaaw bi ñu tabax fa benn banque bu ñuy wax BG fii ci la daal di nag euh, ñu daal koy yóbbu ci biir quartier général bi nga xam ne fi la tubaab bi nekkoon ak soldaar yi ci biir centre ville bi tolloog fi nga xam ne moo nekk ci wetu mont euh, ci wetu mosquée centrale euh, ba noppi dend ak itam tey jii fi ñu denc ki nga xam ne moo njëkk jiit jiite réewum réewum Gabon di ki nga xam ne mooy président lo maanaam Loemba Loemba euh, léegi waaw muy ki nga xam ne kon mooy président Loemba Loemba la tudd Loemba moomu mi ngi sax gane jamono 1902 ji nga xam ne ci la fi sëriñ bi jógee ñibbi Sénégal yàlla def nag bi mu nekkee fii ci Gabon Euh, ci Libreville kon fi la njëkk a nekk mooy première étape bi yàggu fi lool ndax euh, li mu fi def lépp xam naa ne ku ko sedd du ëpp juróom-benn weer ndax dañuy wax ñetti weer ak juróom-benn weer waaye teewul am na ay xew-xew yu am solo yu fi xew yoo xam ne bokk na ci euh, feeñu ahlu badrin gi nga xam ne moom sëriñ bi moo ko bindal boppam nettali ko tudd yi dëkk bi mu xewee muy fii fi Libreville te nee na booba la ko waral mooy dañu ko boole woon ak soldaar yi mu bokk nekk ak ñoom ci benn néeg lépp lu ñuy def ñu di ko def ci kanamam di ko di ko muñ muñ gëm ko muñ nag tax na benn bis suñu boroom eh, feeñal gaayu tedd yu mag yooyu ci fi nga xam ne moo di eh, ci maanaam dëkk yu lëndëm yi nga xam ne dëkk yu yu amoon sobe la boobu jamono ndax moom sax bi mu koy melal sax da koo melal ci eh, nu yéeme wax ne fii fii bi ma fi ñëw booba ki nekkoon kilifa dëkk bi ki nekkoon kilifa ak dund bi moo doon Iblis loolu wax na ko ba ne hmm, summa madaw xata ila jazira raisuha iblisu dul jarira wax na ko sax yeneen yeneen anam yu gën a doy waar kon yàlla feeñal fi gaa yu tedd yu màgg yooyu ci ay doon ay malaayika yu feeñ ngir xupp noonu yi bi ñuy feeñ it feeñu ñu ngir alag leen ndax xajuñ ci ñoom waaye dañoo feeñ rek ngir xupp leen ak ñu wàññi nag loraange ju tar yi nga xam ne ñu ngi koy def sëriñ bi nga xam ne jaamu bi yàlla la boo xam ne dafa jox léppam yàlla fas yéene liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal sax nag ngir am li nga xam ne moo di ngërëmam loola kon fii la feeñu woon moo tax sëriñ bi bindoon ca bayitam yi ca ay yesa wax ne yassara lil muna la daa libar wali man qaada li maa xaaba an wali yàlla yombalal na ma fa libar wi la ma doon wut moom mi nga xam ne moo ma jox lépp secret mbóot moo xam ne aw euh, ëmp um, na bépp wal yi loolu nag mooy feeñu ahlu badrin ndax bayit wa ci topp moo ko firi mooy li mu wax ne lii qaada ahla badrin al usuuda man zaxzaha al waasiya wal xasuuda wammatal na ma ahlu badrin mm, ci ay malaayika euh, ñu feeñ fii moom mi nga xam ne moo moo moo ba mu sori ka nga xam ne moo rambaaje woon yoon wi ba yoon wi am waaye moo ma dàqal itam ka nga xam ne moo feeñaloon ki ñaanam ba boole maag tubaab bi yooyu yëpp kon di xew-xew xew yu am solo yoo xam ne xew na fi